sama cekki gin rës a gis ñu daas cekki gin cekki gin cekki gin cekki gin sama gin rës a gin naa li tax ma lay woo jëluloo ma voilà spécial émission Rich Mon Djizz fi mu nekk géwél yi dañoo jaay seeni ndënd géer yi wuyu leen alaaji wuyu leen wuyu leen ñi wuyu leen géwél yi wuyu leen waaw waaw. Ah, yow lan nga ci bi tey. fii mu toll nii dama bëgg ñëw rek toj Bercy ñibbi waat Sénégal ko bëgg ñibbi Sénégal rek. tonton est-ce que dem est-ce daw. non du ma daw du ma arrière du ma dellu gannaaw. <laughs> tonton <laughs> foo bàyyi sa gi jara gi loolu nag mënuma cee yegg waaye xam naa ne foo bëgg tey danaa la fa yóbbu. non non sa gi jara anamu ki nga bëgg anamu nga cee yegg man dama di kilifa. mais kilifa amul bëggante. Ah. amoo koo bëgg. am na ku ma bëgg. koo ko def mu nga ma denc sama poos. rek Marème waaw bu ñu dellu see rek ñu non koo may booleel Marème Amina bu ñu dellu see rek ñu lijjanti ko bu ñu fi benn problème <laughs> excusez yow ana sa soxna foo ko bàyyi sama soxna maa ngi ko bàyyi Ndakaaru waaw bon maa ngi nuyu ñëpp ah maa ngi nuyu Moustapha sama doom maa ngi nuyu sama yaay maa ngi nuyu doom ñu Moustapha waaw sëñ Modou Moustapha suñ directeur kii commercial non sëñ Modou Moustapha <laughs> kii nii mooy Cissé moo yore xaalisu TFM yëpp kii mooy Cissé commercial wuy leen ko ni mu sañsee Cissé xaalis la bari mi ngi nii. jàllale dingo ne maa lobe sàmb. eh Aziz. waaw fii nga dem de. doo dawaat dara jaral waaw xam nga aduna histoire mooy nettali histoire. te Fodé li mu ci affaire bi mooy tey damaa waroon a bëri. sëriñ bi jox ma ndomba boo xam ne. ki may bëreel du ma gis bañ jaaree ma fàtte fa valise ba ndomba bi naa tey du ma bëri. kon doo bëri daw gars yi daw ñippi leen affaire bi Sénégal la. mër nag ñu <laughs> eh, mën naa daw nag Sénégal dafa métti. fan. moo xoolal. waaw ki ma bëgganteel mi ngi ci Europe. yow sax yaa ngi commencé wax Europe na neel bonjour. bonjour. dégg nga dégg nga muy yi bonjour. <laughs> xam naa la daal su ma dawee jaaykatu kànja laa bëgg a doon ci dëkk bi di di jaay ñu bëgg suppu kànja. gis naa la Château Rouge ngay jënd place. <laughs> Poté Paada daw Sénégal dañ laa soxla léegi dootoo national de Poté international. mais Sénégal man bar kii Serigne Touba kii yàlla mooy natt doomu aadama dama ko bëgg xol kii. non dama ko bëgg barki Serigne Touba kii mooy Aziz ñaan euh, jàppal na jàpp na lu bari nag ci sama carrière di ko ñàkk ñaan koo xamante ne man ko amul patient doo ànd ak man ndax dama metti xat koor laay dund ba tax na Aziz kon ñu ngi lay remercier koo bëgg a nuyu. Euh, di nuyu yaayu Aminata. mooy sa mooy sa mignonne jolie. waaw di nuyu mooy sa mooy sa Rismon. Aminata xam nga yow fu mu la def. fu mu ma fii nee na poté ko ko laal. <laughs> moo tax euh, Aminata maa ngi lay nuyu bu baax a baax comme fii nga ma def dencal ma arrêt boo xam ne ku ma laal nga dóor ko ko du ma def lu nuyuwaat Salim mi nga xamante ne dafa teral ndayam teral ndayam nee naa la bul keer dara yow li la war yëpp ci na ci yu baax def nga ko bag nga Espagne rajaxe Paris fi mu nekk nee naa la yow yaay Sali tour du monde koy nit sama papa ak sama yaay di si nuyu Choco di si nuyu àddina bi yëpp. non Choco sama sama la yaa ko sa terme la maa ko sàcc. sama rak. spécial émission Rich Mon Djizz fii ci Bercy nee naa leen Bercy day toj xolal boo bëggul Bercy toj rek bul taxaw Bercy xam ne bu feelee da lay laal te tam nga yaay kan. man maay Abdoulaye Xat Sall. Abdoulaye Xat Sall koy nuyu ci Assane Ndiaye làmb ji. maa ngi siy nuyu euh, sama soxna Mariama Diop euh, mu ngi euh, Guinée Bissau ak sama soxna Fatou Ndiaye mu ngi Touba Khayra du si nuyu sama xar. yow ñaari soxna nga am. waaw deux la hein. deux galons. waaw yow eh loo am weer ba am ñaari soxna. bon sa pas. wala jabar xaalis yoru ko. non du problème xaalis nag ah. gëm yàlla gëm yàlla ñoom nga ñaan xéwal man yoo leen mën a yore rek. Ah. waaye tey noo gisee làmb ji Bercy. waaw kontaan naa Sénégal yi ñëw nañ artistes yi ñëw nañ sama copain ñëw nañ yaakaar naa ne daal vraiment. Euh, lii dafay wane ne Sénégal jëm ca kanam rek. Sénégal yow sa àddina boo màggee loo bëgg a doon. <laughs> c'est une question collée. <laughs> parce nga ba pare. voilà exactement màgg naa. mais des na des na des na am na. sant yàlla ñoo ngi gën a ñaan xéwal. non non boo màggee loo bëgg a doon. avocat wala policier wala militaire wala jàngalekat. <laughs> lépp ça va dëgg la champion ça va jaajëf waay. alors kon daal waaye ay mbër mais loolu dafa war a mbër yi wax ci jaar ko loolu sax ma ne toog leen toog leen baa ngi nii toog leen jaay tak aja ayane ñaay maro la le ba bu la bala gay African nuyu ci ñaañaati kee gànn bi. Ah, xanaa rek ñëpp di la bëggee. di kontaan ci yi non li nga sol dafa rafet jugal taxaw ak man yëkkatil ubbil sa loxo yi. dëgg la dëgg la ajal ci kaw ma. dëgg la dëgg la lii la yow laa ko tuddee. Amina. ngay ma la kat may Alaaji Texe Sàmm. am Alaaji Texe ba jiwal gànjool. déedéet dëkk jóge nag Sénégal ñëw uniquement Bercy pour fekk si bis bi. fekk bis bi waaye bi ñu ñëwee it nag wax dëgg yàlla Sénégal yi ñu fi fekk dañu kontaan ci ñoom. Euh, boo déggee Bercy xam nga ne Bercy tubaab ko moom moo ko tabax teg ko fi alalu tubaab la mais boo ko déggee sa tur ci ban kilifa bu mag la dem lay dem. Bercy Bercy bersi boo ko déggee mooy dëkku tubaab yi bëgg cosaan. tubaab yi mais Bercy am na koo xam ne moo def promotion Bercy. mu Youssou Ndour mu Youssou maa jigéen mu dégg Bercy Youssou Ndour a ndax moo tax sénégalais yi xam luy Bercy bu mosee xew bu an bu bu bu bis bi bu ñëwee. Sénégal yëpp dañuy xalaat ni dañuy xalaat ni Bercy daal Youssou Ndour ba kenn du fa des. yow loo am gijara gijara wala Bercy gijara. man jigéen Bercy. gijara bi mais tonton yow boo màggee loo bëgg doon policier wala football wala la. Eh, xanaa policier. boo màggee. policier waaye man defe naa màgg naa pare. <laughs> Ah. <laughs> loo xamul kañ lay neex ak kañ lay jeex lu la romb na neex. romb na neex mais lan côté. mais laay daxawal man man man dama lay poser samay question da ngay daw wala doo daw ba pare. mun naa la répondre sérieusement <laughs> koo xam ni yaa ngi nekk Sénégal. eh da ngay daw wala doo. dama lay non dama lay ñëw dama lay dama la koy résumé. ñaari jabar nga am ak njaboot. dama yor ñaari. say jabar ay responsable. Sénégal namm ma dara. namuma namuma dara maanaam namuma France ak Belgique ak Canada man fi ma fi ma bëgg mooy Sénégal dégg naa nag Kouthia di wax ne damay daw. damay daw waaw mais li leer ba leer mooy dimanche ñëpp dinañ ma gis Sénégal. léegi amul problème boo dawee sa jabar yi. jabar dénk nañ ko Aziz. Mariama ak Aji Maguette man dong nga leen attan. Mariama aji Maguette man. bu Lamine Samba dawee ay la Lamine Samba dénk nañ leen Aziz Niane du ma daw pote pote pote pote bul fàtte ni bul fàtte ni ba surtout buur sin ku mën fen laa àndal kon kooku moom bu ànd moom du ma ànd ak moom di daw te namuma France saa ma neex saa ma bëggee am visa fu ma neex dem altine maa ngi Sénégal yow ee eh, TFM moo la yombalal lépp wal fajiri moom mënoo woon buuse TFM TFM TFM ci ci gàttal musuma dem ngaay ngaay mexe mais TFM moo tax TFM mi ngi nii rouge bi mi ngi nii bonheur rouge yéen seen kii bi lan la woon bu la fàtte nga couleur ba sax euh, kenn du yéen maa ko wax <laughs> ñama waxoo ba ya wax soo ko waxul dañ lay daggal bi <laughs> waaw Pero por nee naa leen seen spécial émission Rich Mon Djizz fii ci Bercy nee naa leen Ablaye Dieng mi ngi nii kii mooy goro Fatou Gueye di wujju peccar go ah sabadi lu ci nekk yow in ma ëffal la ko hmm. koy nuyu ci clip faatu Fatou bi maa ngi koy may sama jigéen Thiané Faye waaw Thiané waaw sama jigéen sa jigéen wala sa góor sa sama góor la ah, waaw waaw Thiané góor waaw Siri Abou Gueye di ko may sama yaay waaw bébé Thiané waaw di ko may sama ko yi nekk Belgique waaw ñoom Ablaye Mbaye yow yaa ngi fi ba après anniversaire bi. maa ngi fii di def tournée ak aspiré gu ma su ma anniversaire bi jaar damay def tournée. xam naa ne fii ak 6 mois laay ñëw Dakar. Ah. incha kon dañuy jëli Fatou Gueye waaw yow lépp dama lay bàyyi moom rek xam nga yëf yi yëf seef la. waaw parce que boo xoolee anniversaire Fatou Gueye bi lépp sa loxo lañ ko teg. Ah. yaa res lépp. bul <laughs> nag ñëw ñu leen xaar. anniversaire Fatou Gueye le juin. yow boo màggee loo bëgg a doon. man mm. woykat tëggkat di wala di di tafuwaate ku bëri alal di dimbali néew doole rek <laughs> bu ko amoon du def dafa bëgg xaalis lépp peet kii la koy lekk ca bas peenam be ca bas ah parce que ah, oh, ah dama damaa tàmm bas damaa tàmm bas maa ngi mooma yemoon non Babou Ngom laaj naa ah yaay Babou Ngom yaay tëgg affaire non yow xàmmee tonton man dama la mës a xàmmee kon dañuy defaat beneen émission comme. tonton am. eh, eh indil koko. père doo nit yàlla na la yàlla musal ci cat. loolu jël ñi nga xamante ne boobu ba tey ñoo taxaw fii di ay sénégalais yu am jom nekk ca Belgique muy Nogay Diba mu Bétoir Nangaan doomu doomu ñoom xaw nan nan ca football ba waaw Nogay Nogay am góor Nogay kon yaa ngi fii boobu nga nuyu Sénégal ci ci euh, ci Fatou Gueye gis ngeen Nogay gis ngeen nogay nogay dibaa ngi daal di faq France ak Nabou Sembène ak kan. ñëpp maa ngi ñoom maam day jénn ñoom ñëpp bétuwaar yi waa sama jëkkër <laughs> sa jëkkër gaañu na ay eh, bu ko rayagum deewagul an ah, na sama maam jooju di ko ñaanal yàlla xaree ko àjjana muy euh, euh, Alaaji Seydou Mbaye ku ma bëggoon ku ma jàppale ci sama àddina kon ñu ngi koy ñaanal yàlla xaree ko àjjana euh, yàlla teg njabootam ji loxo di jaale tamit Baye Mandione di ko jaale yaayam yaayam di ko wax na ko yàlla na ko yàlla yóbbu ca àjjana yi fiir daw si ya gën a kawe di ko jaale euh, euh, mbër yëpp man pël la pël nga moo tax nga son mën naa lan la pël. non moom jaaxanke la. jaaxanke kon yéen seen doom dina rafet de macha <laughs> na na ngeen ne sa jabar nu mu tudd. mañana mañana. waaw ko def mañana. non moo la dàq nag. sama non si yow yow ma dàq. <laughs> non merci beaucoup mais sama jabar moola la dàq. <laughs> d' accord naa mais. non yow laay bàyyi nga wax ko foo mu ko dugal. foo ko dugal mañ nan naa Mañana ñi ngi lay may kilibu euh, Fatou Gueye Diouf bi sa talboo nee na fii la la def tamanit fii laa la def te nga jéem a may taar comme yaa ma dàq meññ naa <laughs> kan kan ngay nuyu à part sa jabar. bon maa ngi nuyu waa HLM 5 di nuyu waa Golf Sud. kon Sénégal nga dëkk. ah bee fa laa juut fa laa. abay abay nga ne danaa bay fa laa dëkk. bay non dëkk maa ngi nuyu képp koo xam ne xam na ma maa ngi nuyu ñëpp vraiment di nuy surtout surtout fu ma jógee ku ma xàmmee rek may naa ko. Euh, loo wax tey ci làmb ji. ah ji tey nag le meilleur gagne. waaw àndoo kenn. non ànduma bi nga ànd. ànduma ak kenn arène bi laa. da ngay bañ stress. stress laay bañ. <laughs> ba tax na ka miyeer naka la miyeer gañ xaw ma ka miyeer gañ kon nag Baboy ak Bombardier la woon ku ci mën a yéeg sa kaw moroom rek ay ca mi ngoog. maa caméramanu TFM yaa ngi nii ñoo nekkoon biir si amet nag yow nit ñi ci musóoru lañ nga xamee woon tey nag takkoo sa bopp bi kan mooy <laughs> lu tax tey takkoo sa bopp bi <laughs> ba pare il faut que ñu xam amet ku mu bëgg <laughs> tey mu dee léegi amet euh, masaraxe la yéen nag amet xaw ma kan la ci dig takk sa bientôt xam naa ñëpp ngi lox bu fekkee quatre ngeen il faut woowee DFM bu ñuy euh, Petit bu ñuy woo jur bi tonton lan la ñuy wax master xaw ma tonton nan ah yow <laughs> tonton nan dimbale ma jaawo jaawo nuñ ko tuddee buy joxe résultat yi tonton nan master ma nan tàkkul yow ngay waaj a jabar naan ma <laughs> amet a ngi ñi ànd amet yéen ñi àppoo Ameth day takk bientôt jeudi lay tombeel nag mais duma leen wax date beeg kii bi mais jeudi lay tombeel euh, ki ngay takk mën nañ ko xam dégg nañ dangay waaj a marié moo tax yaa ngi jeex <laughs> boo wax xam nga man damaa def damay wax tuuti ko moom <laughs> kon yow <laughs> waaw maa ngi fi. yow la kan Lamine Samba. non man la Buya. Buya ah Buya nga nuyoog Lamine Samba de lu ngeen laaj ko sama cousin la Lamine. <laughs> ah sa cousin la. waaw mais Buya koy nuyu France wala Sénégal. yow laay njëkk nuyu ba pare. man foo ma dem. man fii. ci estomac boobu Buya. mais Buya am nga caaj de nii nga mos a amee caaj. man waaw lamb ji loo xam yow loo ci xam. bon dama ñëw rek euh, bon participer comme d'habitude. waaye sopp lamb bëgg lamb. bon ku lamb sopp Amina Poté wala sopp lamb. waaw sopp Amina Poté teg ci. bu baax waaw nuyu waa Sénégal ak waa Mauritanie tamit. bàyyiwuma la Leuz na nga def. Leuz la ñuy wax tëg. lu la gaañ. waaw xam nga job bi job non même pas sax. da nga daan ci douche ba ngay sangu. ah déet déet déet déet déet. <laughs> <laughs> scooter quoi walaay walaay. waaw ah, la waaw waaw mais mu. dañ ma mbëkk mais mais mi ngi tane ah. mi ngi tane waaw maa ngi am yàlla ko tedd ki def ngeen xoolal soo nettali si na. waaw soo da nga photo. <laughs> non même. non yaa bi yaa bi beñe beñe. naagal ma ko looy lekk. beñe beñe mer Fatou. mer Fatou loo def si yow da nga photo si làmb ji wala da nga nettali si wala qu'est-ce a encore. waaw comme d'habitude rek. temps yi Paris ba nga fi tànk de. parce que nag Paris. sama pari la nag. pari son la sant. pari son Ndiaye. <laughs> waaw son Maki. mais yaa ngi fi ba Fatou Gueye bi incha allah. waaw maa fi di. Ah, mais <laughs> ma def lu dul kontaan. parce que ñu Sénégal la ñu am. lamb gi suñu fierté la. Mhm. musique bi sunu fierté la. Mhm. kon tey bu doomu Sénégal xawlee. dañuy bàyyi lépp ñëw wuyu si. kon ci bés bi. bu dul dara Tafa su sama xarit la. suma doom Tafa ah waa franchement nekk sama nit. Eh, bàyyi sama sikkim bi ngay létt bàyyi ngay def eh, waaye peut être yaa ma lay tu vois kon tey dañuy kontaan ñëw bàyyi lépp ñëw France jàppale Tafa ci liggéey bi ànd ak moom ba fu mu yem. kon dama lay may clip bu Dabrène. waaw may ma fi non kii waaw clip ki mu tudd sax te maa maa ko def. Ah. big sound te ma sol périque beeg yooyu. yaa ngi tifli rek son loolu. waaw a mel ma clip d'Abrantes bu ñëw. waaw clip d'Abrantes bu ñëw ko comme d'habitude bon di ko may waa Gueule Tapée. chaque jour Gueule Tapée laay njëkk a jiital. après waa Médina. waa Thiès sama dëkku maam. Mhm. waa Kër Massar suma paa sumay xarit samay tante samay bàjjen kulim jum waa Kër Massar ñëpp. doo ko may sa trondo. bon di ko sama trondo son junior <laughs> son petit son ak kan. sama yaayu bopp. waaw yaa ngi sonné wuyul mi mère Fatmata Gueule Tapée. waaw ak peut sama yaay Fall bi waaw eh, mi ngi may ñoppati <laughs> voilà gis ngeen ne daa bëri si laa leen di imposé waat di leen ko proposé di leen ko may. Sénégal Sénégal prince. yaay prince in the job. Sénégal. welcome Seyna Mbaga EPJ Anissa Xoma welcome to Sénégal fa mu mooy West Africa Dakar moo di capital réewum teranga booy laajte yegg si nga Joola séeréer bambara bi booy tukulóor wolof saraxule booy mankan soose portugais booy mama wuy ko wuy ko mi dun jële jële jële jële jële wuyul wuyul wuyul wuyul wuyul wuyul wuyul wuyul wuyul wuyul wuyul wi wi waa lii mbaa jàmm Adja lii koy nuyu koy nuyu ci daab ren euh, maa ngi ciy nuyu suñu waa Kër Dakar. Kër Woré Woré Oressi waa Oressi. Nations Unies Amina nag ma bett nag. <laughs> non dama la bett mais yeggali. voilà ah, donc j'embrasse mon papa aussi. tu embrasses ton papa ah, aussi. le commissaire si. je lui fais un gros bisou. tu fais un gros bisou à qui. <laughs> à mon papa. ta papa à ton papa. belle sœur ñoom Aïda. sama ñoom tànn. yaa am càcc waaye noo tudd yow. Ndeye Mary man maa ngi tudd Adja. mais nga mës a amee càcc. Adja si nga tudd ba tey jii noon yàlla mel ne yow su ma waaye Adja yaa am Déwante ànd ba ngoonte Sénégal. jóge Ndar dem Kaolack Kolda yaa ngi si mënoo xamee jullit ak catholique benn làkk ñu bokk ko muy wolof. ñëw leen disco ba sama town ñëw leen xam li xew Sénégal dem Saly dem Gorée dem Cap Skirring site touristique yëpp mënuma ko lim ñëw leen. man Pape Thiam Fajar laa tudd promoteur. Pape Thiam Fajar laa jóg Fajar yeew mu mbirum yow sa promotion dox ko dina yomb ndax xam na ma damay préparer. Pape Thiam Fajar Fajar ban heure 6 heures du matin wala 7 heures. di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Pikine di ñaan Baboy daan Pikine wala di nuyu sama ñaari doom yi maman Asou. ndax Baboy sax da ngeen a nuru. sama sama la ñoo àndandoo depuis xale ba tey. Ah. waaw ñoo mës a di ñaan tamit euh, combat bi. Eh. nuróo bi yaa ko taxal wala moo la ko taxal ba ngeen. ñoo ko taxaloo ñun ñaar di ñaan tamit bajaan yàlla may ko réussite parce que dafa baax daf maa woo ba pour ma jàpp si làmb ji ma def kaar pour gars yi ñëw jàpp ci làmb ji di ñaan tamit combat yëpp réussir incha allah bëgg na nga wax sama grand bi nga xam def na fi 17 ans def na fi 20 ans. waaw yow Fajar am nga gijjar wala am nga gijjar. am naa lépp. foo ko fii am nga lépp. grand yow la kan. man maay grand Mar de. grand Mar yow soo nga de. man maay magu Mbaye Babacar. Mbaye Babacar ban la benn ñëwal waaw mais grand mère yow lan moo tax nga gën a taxaw Mbaye Babacar nii <laughs> mais non attends moom moom moo gën a taxaw de non mais grand mère am na looy jël wax ñu sa secret grand grand sans caaxaan grand grand grand bilaay grand waa grand yaa ngi déggoo ne de ñaara may toppatoo <laughs> ñoo nekk ba Sénégal di ma envoyé lu tax mu mel nii kan ak kan la kooku mooy Nabou ak Yacine ñaar nga am ñaar non grand mère non grand yaa bi ji nag mu doy ba sëkk kon doo du troisième grand da nga bëgg a wax ne ci deux yi ngay am mais deux galons non grand no il faut que troisième dëng bi fi ak fii baal ma def ko quatre kon. non grand quatre non bu dee man maa dugg dama bëgg quatre quatre ñëw. da ngaa bëgg a dugg. ah grand yaa ngi lox ci damaa bëgg. yow xamoo nabu boo xamoon kuy. damay gaañ kooku da lay blessé. déedéet. kooku. non mbaa du nabu léwtoom ardo rek. xaaral lii ba xoolal li xew ci biir. loo fa gis rek. takk ndeeram la. taqandeer lu ma gën a sadik rek nabu la. taqandeer gannaaw yow ba ngaa dee de comme lu ma fa gis sadik nabu la yow yaa ngi dee. déedéet. <laughs> koy nuyu ci Daabéren si bi première moom lay nuyu. di teg Yacine. ma deuxième femme. et di ci nuyu. bépp am na ku ti solide ak tawaat tali bees. et puis ñëpp ci ginnaaw baaboo yi waay oh, ah bàyyi woo kenn. bàyyi ma kenn sadik nabu la rek tey nga dee. yow grand yaa ngi bëgg a dee te waxoo. moom léegi mer ma. waaw yow tiital nga ma. moo ko moom. Ah. balaa may gërëm kenn moom laa war a ñu gërëm. kon jox ko bëdi. ah sama séeri. <laughs> mon amour maa lay xaar bëri yow laa war a ñu ko tudd. mooy sa mon amour. mooy sama ah. mooy sa ah. waaw mais yëg nga ne mon amour mburu mu yàqu la yéen ngeen jàpp mon amour rek. mon amour xëy nga amoo benn bay de xam nga ko xew <laughs> ah. <laughs> waalo waalo luga luga tambati wawon tuba jibi dem dara dara matam matam wuro sogik velingara e ñooy góori di gaynde di réewu jàmm teraanga mën gan dañ ko tam boy jàmm am na te respect am na ñaan bur yàlla bis ak askan wi c'est fa sunu xaalis melting pot sunu Sénégal mooy réewu teraanga un peuple un but une fois suñu devise la sunu Sénégal mooy réewu teraanga welcome to our country welcome welcome